salam alaikum, ngi Papnia Pape Golf Sud euh membre du parti socialiste membre de la coalition Benno Bokk Yakar. en tant que jeune euh, de la commune du département euh, du Sénégal euh, nous sommes en période électorale ñu y ni am nañ rôle bu nous wara jouer ci suñu parti parti socialiste mais également ci suñu coalition Benno Bokk Yakar pour li nga la réélection du président Macky Sall nous avons def nañ caravane def meeting def proximité nous avons ñu xalaatoon tëjee une campagne fi suñu quartier nous avons ne le Golf Sud ak un débat boo xam euh, les réalisations du président Macky Sall mais également nous euh, avons li nga la phase 2 du plan Sénégal émergent C'est ce que nous avons fait.

la mobilisation a été très très très forte ñu ci sant yàlla bu baax di ci remercier euh, toute la jeunesse socialiste bi nga xamante ni moom la ñu àndal di liggéey mais également la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga ñun depuis parrainage ba léegi noppaluwuñu mooy li secrétaire général Ousmane Tarondier di wax. soxla du am rakk bi ñu paree ci parrainage bi dem ci pré campagne campagne ba léegi noppaluwuñu ci rek lañ le second tour de 2012 ñu def ko le premier tour de 2019 Moi ñu réélire le président Macky avec 65 ci lañ bon euh, s'inscrit dans un contexte de banlieue euh, mais je crois fermement que tay dépassé nañ euh, yenn état d'esprit yi nga xamante ni euh, mom lañu nit ñi doon donc je crois que la jeunesse de Guédiawaye est une jeunesse très saine une jeunesse responsable euh, message bi moy lancer moy na gaay yi teel dem vote ji dans le calme la tranquillité la lucidité balaa 19 h comme niko à Macky Sall waxé sama gaay yi ñu ñam leen ay ñam yu baax manam ñu lapp leen rek niko Macky Sall waxé euh, bu ñuy délibéré ñu am une victoire nette et éclatante sans bavure Guédiawaye info euh, d'abord maa ngi leen remercier euh, di leen encourager ay jeunes ngeen bokk fi nga xamante ni mooy Guédiawaye donc nekk ay jeune entrepreneur mu doon loo xam ni lu ma bëgg la muy donc maa ngi leen encourager di gis ni seen liggéey liggéey bu rafet la donc nekk leen ci loolu continuer sur cette lancée euh, vous avez tous mes encouragements, mais également vous avez toutes mes félicitations.